gis nga affaire gaal gi ñu bëgg a dem dañoo bëri yàlla xam na ko fi mu toll nii nguur gi bu defoon li ko war kon kenn du génn dem ñii di dem di dee nii dafa metti barki alxuraan ñii génn di dem nii dafa metti mais nag nu ñuy def parce que dëkk bee metti yow imagine nga nekk si koñ wala nga nekk ci kër nekk ak say waajur ah saa su ne yaa ngi gis ne yow yaa ngi war a am daf dox yenn jéego pour dafar gaale bi wala jox la ñu lekk ñu naan nga xëy suba ba ngoon doo am dara yaa ngi dégg léegi nga dégg ñu ne la fa fekkat ku fa dem da ngay nekk sa benn morom nga jéeg dem na fa lay jéeg ñëw gis mu commencé tabax yi defar léegi looy def da nga naan xaaral dem sa yaay jaay ay oram mbaa nga dajale jaay say xar pour ne damay tukki renk ngir lan dimbali say waajur kan moo dem kan mooy gis dee naan xaama dem du dugg ci kenn bëggu ko solution yi mooy nguur gi jéem a sampaat fii maanaam defaraat maanaam wàññi wàññi taxi yi yaa ngi dégg jéem a def fi ay emploi maam ubbi ay usines yoo xam te ne gars yi nañ ci mën a liggéey ñun ñoo ngi nii ay ouvrier lañ menuisier lañ suñu métier mën nañ ko lool macha allah mais tey lal ba nga daan defaree tey benn benn maanaam cinq cent mille six cent mille xoolal nit ki bu la ko naree fay dem jënd ko ci importé moo ko gënal léegi da ngay toog ay yées ñaari weer ñetti weer pour xaar benn liggéey te bu ñëwee da nga cay mos dikkeewu la ngay engagé lal pare ay ñaan nga ci lekk soixante quinze mil ah cent mille bi sax pour nga lekk ko boo yeexee tuuti liggéey bi day gaaw soo ko lekk léegi nga dégg ñu ne la boo tukki jee taf da ngay dem ñun dañ li ñuy daj fii si coono bu doon bu doon réew ma la heure bi kenn waxatu ko li ñuy fii si coono bu doon réew ma la heure bi kenn waxatu ko ñoo ngi tenté nag pour dem tenté nañ ñi ñaari yoon mu échec mais ñoo tey bàyyiwuñu xaadi wuñ de dañoo bëgg a dem dem lañ bëgg lu ñu mënti am demoon ñu ko gënal waaw état bi maanaam mu dimbale ndaw ñi jeunesse su réew bi na leen dimbale xale yi bëgg nañu liggéey wallaay ajim sénégalais gis amul kenn koo gën a nangoo liggéey ñun bëgg nañ liggéey de mais dañoo gisul lan la liggéey ba pare mbir yi metti na seer na xam nga kénkaari baa nii boo fi duggee benn protocole bi mu daan jaay mille trois cent mu ngi ci deux mille francs ah lum lépp lu doon jar cent francs fi mu toll nii yokku na léegi-léegi laa jàdd di jënd ngooñ pour samay xar xam ñaar lañ ma wax huit mille cinq cent si ngooñ mi daan jar saako trois mille maanaam léegi lépp a seer léegi état bi su wàññi woon dund gi rek ñun bu ñu wàññi a jëriñ suñu mu baax mais dëgg dafa tar sam waajaay nii daay waaja a dem wër na yàlla dem la bëgg tukki rek la bëgg lu mu am jël gaa yoo xam mu na boy xaalisam tegu na day xaar gis ko leer mu dem non loolu jàngat bi ci am bariwul jàngat bi mooy jeunes yi seen pexe moo jeex rek amatuñu yaakaar ci dëkk bi léegi nag nit ki boo nekkee ci dëkk bi ba amatoo ci yaakaar da ngay xool li nga xamante ni moom mooy solution bi xëy na ñoom loolu lañ def solution li nga xamante ni ci lañ mën a xool pour xool na la ñuy defaree seen avenir xëy na ñoom loolu lañ gis moo tax ñu ciy dem mais nekkul ñoom kase ñoom ñi feen ngeen gis mais ñi toog bëgg a dem dafa bari man mii ci ñi bëgg a dem laa bokk. yaa may dégg tante nañ tante waat mi réussirul te muñ ko gisaatee tey tey dañuy dem ndax mënoo dëkk ak sa papa dëkk ak sa yaay nga xëy suba ñuy am problème lu ñu lekk mais solution yi bari na maanaam Afrique dañoo am ay njiiti bon Afrique ay njiiti bon lañ am du ma ne Sénégal Sénégal moom dafay raw mais yow fii nga gisee politicien boo xamante ni dañ lay dénk xaalisu réew mi di dugg ci Ndiaga Ndiaye dugg ci super yi même pas deux ans trois ans nga nekk milliardaire wala millionnaire mais kooku xaalis boobu xam nga dëkk bi dafa metti nu ñu mën a jàppalee dëkk bi mooy lenn ubbi ay usine moyens yi am na fi yow xoolal boo jógee fii ba Fuuta ñaata àll ngay romb Kébémer amul yoon booy jaata doo fa gis àll boo xamante ni lii yoon la ñu samp fi ay mbay yóbbu fa jeunes yi journée 5000 koo ci fay journée 5000 bay ba pare dagal leen ay logement yoo xamante ni dañuy toog ubbi fa ay réseau yoo xamante ni yow yaay ne fa yow état bi. il faut comprendre nga li ma ah kenn kenn ku nekk mu leer na la yow heure boo liggéey bu la neexee bu fekkee da nga fee am njaboot ngay wàcc chaque jour bu la neexee boo amul njaboot bu la neexee mën nga fa toog ba yenn instant nga dem joxe sa kii mais loolu solution la mais ñoom xam nañ ko mais duñ ko def lu tax duñ ko def solution la soxna si xaalis bi am na fi mais nañ ubbi ay kii gars yi dem liggéey moo gën xam kenn ku nekk fi nga juddoo maa ngay fa ngay bëgg a tekkee mais da ngay nekk ak nit ngeen nekk fii. xam nga mu ñu naan la gaal yi wóoru gaal yi wóoru mu jaar si gaal dem même pas deux ans trois ans mu ñoo tabax fii R plus 1 wala R plus 3 te yow brique sax mënoo ko am léeg-léeg loolu après yaakaar boo bakkañ noo xam nga fi mu toll nii moom dëkk bi soo bëggee dégg da soxna si ngañ baa perte la da ngay dugg ci gaal yi dee mbaa nga dem réussir boo dee noppalu xam na da ngaa jaayante ji woon fa wala sa bakkan ak foo foo foo mën a dee nag ndax yàlla dee la njëkk bind balaa moo bind dund. foo dee dañuy xam ne xam nga foofu la ko yàlla dogalee ko waaw xam nga mais xam nga dëkk bi li fi nekk kenn mënu ko wax dafa metti soxna si dëkk bi dafa metti balaa nga ko xam nga gën dem ci banlieue bi ma dëkk man maa ngi dëkk Pikine guy faatu may nga fa laa dëkk mais balaa nga xam ne dëkk boo metti nga dugg fa boo fa duggee da xam ne lii noo mosoo xam ne lii ni da ngi dund lii ah jeunes yi kañ lañ gën a ndekki ndekki amatul ci dëkk bi boo duggee ci biir kër yi reer amatul reer moom amatul borom kër yi xoolal añ lañ diggeeg njaboot gi jeex na reer yow yaay dugg dem lijjanti ko bu fekkee njaboot gu sew bu jigéen nga yor nag ñu daje gaay ci bi di ñu ko koromp leen xam nga moo tax affaire kii bari bi mais xam nga dañuy waxante dëgg quoi te yàlla tax mais xam nga dafa ñaaw dëkk bi li fi nekk dafa ñaaw gaal yi daal loolu moo ko mën a dindi nit ki nag boo nekkee sa dëkk ba amatoo ci yaakaar li li li nga xamante ni moom moo la mën a def yaakaar si loolu ngay dem te ñëpp xam nañ ne mooy gaal yi ñi ñaa ngi ci dem di réussir ñu naa ngi ci dem ci dee mais boo ci dee pour man du xaru da ngaa jaayante ji woon waaw xam nga yaakaar amatul ci dëkk bi am ay njiiti bon waaw